monsieur le ministre waa Barcelone nag dañ maa yóbbante dañ ne au mois de novembre ñu ngi doon xaar l'équipe bi nga xam ne war na faa ñëw pour wutal leen ay passeport passeport yi na yow ak le ministre de l'intérieur yéen a ko seq mais jusqu'à présent kenn ñëwu fa te vraiment am nañu problème mu passeport ngeen jàppale leen ci nee nañ ma tim Sénégal yi bari na lool ca prison ba monsieur le ministre ñu bëgg ngeen jàppale na ci ba xool xale yooyu nu leen di lijjante monsieur le ministre nee nañu dañu buggoon de benn convention boo xam ne bu ñu ko mënoon a signé ba nga xam ne tey permis yi ku na xam ne ne permis boo koy wut à l'étranger dafa cher ñu bëggoon fexe ba ngeen wutal leen benn convention boo xam ne danañ ko signé tey ba nga xam ne ku am sa permis sénégalais boo taxawee ñu man la koo changé ci biir loolu ñu wan ma na ma tim ne permis yi nga xam ne dafa nañ ko bi permis yu bees ku na xam ne ne kenn mënu ko falsifier ku na xam ne ne kenn mënu ko njuñ jaaj kon war nañoo mën a fexe ban signé leen benn convention boo xam ne tey fu taxaw amee permis ñu mën leen ko changé wax nañ ma tim ne ma boobu ba léegi ñu ngi demandé benn bureau boo benn consulaire au niveau de Barcelone parce que Barcelone ku na xam ne la fa nekk ci ay sénégalais. ci ni mu tollu ci biir Espagne ñu ne boobu ba léegi ñoo ngi koy demandé monsieur le ministre mënuñu cee jot mais bu ngeen leen dimbale woon sax bañ am benn bureau consulaire parce que ku ne xam na ne diggante Barcelone ak Madrid dafa sori léeg-léeg nga dem am fa trois jours pour ñu war la mën a defaral sa passeport pour nga war ci mën a jot ñu bëggoon ngeen dimbale leen au niveau de Barcelone pour ñu am fa benn bureau consulaire ñuy ñaan tim ne la convention est buñ ñu mënoon a fexe ba rectifier ko ba nga xamne tay sen document yi ñi wut dootu jaar par la voie euh, diplomatique lo tim neenañ bëgg ngi leen ngeen jappalé ñu leen ci parce que lélé nga bëgg wut ay document vraiment temps bi dafa yàgg pour les signatures fu ne mu difa jaar ngeen jappalé leen ci lool monsieur le ministre ñu ne tim bu ngeen leen mënoon dimbalé ci manam la sécurité sociale ba nga xamne tay euh danañ mën a ba ko xamne jël nga retraite nga mëna fex ba sa pension boko mën di jëlé fi nga jëlé ko fi ma ñëw nak monsieur le ministre ci l'immigration man mi yag na fa lool xam nañ la fa xew xañ na nak kumpa la ci ñi nga xam na tay dañu bëgg dem ndax ko na togal mun a dem nga ñëw nga jënd nga auto wala tabax nga kër monsieur le ministre barki la Espagne développer te ñoko ko sen bop gis nga am réew askan wi ñoo koy développé mais pas le président de la république moom xañ na mën na am vision na lii kat bu ko defoon lii kat buñ ko defoon suñu Sénégal gi dana suqaliku mais ñun ñoo koy suqali monsieur le ministre ñun ñi fi nekk ñëpp dem à l'étranger ku ne xam na la fa xew lañ fay liggéey bu ko liggéey fii danañ dem buñ xaar ñu naan France toll na fii wala Italie toll na fii wala Espagne toll na fii ñoom ñoo fa tollal seen bopp y a pas de amul ku ci ne am na foo xam ne tey boo fa yëngatoo yàlla mën nañoo dimbale ba liñ bëgg ci suñu Sénégal gi danañ ko am ndax tey xal yi dañoo tàmb ku ci am sa diplôme na maa ngi xaar ñu teg ma ca bureau kooku damay wax ak les jeunes nit mën naa toog di xaar bureau mais mën naa am ci lu muy yëngatu ba bureau fekk ka ci parce que toog bi mooy lu amul njariñ suuf si nan leen ci bay nan leen bay nan leen dem defi élevage nan leen dem defi leneen ba leneen lu ñu ca fekk fekk ñu ca waane boo amee sa diplôme toog di xaar naan man ka tànk que jox ñu ma bureau wala tànk que jox ñu ma oto duma dem liggéeyi bi ñu dem fenn kon nan leen fexe ba suñu doom yi nañuy waxtaan ak ñoom ku ci am sa diplôme gisagoo liggéey demal am loo xam ne mën nga cee yëngatu au moins ba baa ngay gis bureau boo xam ne war nga caa mën a toog nga toog ca ma xool tim ne monsieur le ministre tey ki nga xam ne dafa am 3 millions 500. Je vais avoir un visa pour voyager. Mais 3 millions 500, 000, c'est avez un taux qui se bire, mais vous avez un taux qui se bire. Merci beaucoup.